ci sëy la cay wàññi ak a ñàkk solo du jóge ci moom mu jël engagement bi moo tax xale bu góor ma wax ne da war a jël ñemee jël engagement wu dama laa bëgg mu ne bëgg naa la takkal waaye di dem di ñëw rek di seet si xale jigéen ñi moom te naan man bàcce may génne bu la génnee ba nga sàtt ko mu génne keneen bu la génnee ba nga sàtt ko mu génne keneen looy génn ak foo jëm sax gone gu jigéen baaraam bi bii koy joxoñ bii ana sa doom jigéen ji nga ne mi ngi nii waye ma nga ne wour nako baram bi di joxante bëgg bi joxante <laughs> sallallahu alaihi wasallam, jox kat dom nafisa nafisa dem defal rendre compte euh, khadija ñu maye len suñu nopp waye yonent bi ci ko di jëkër ji mëd jëkër jëkkër ju mët jëkkër arijaalu qawwaamuuna alal nisaa gis nga jëkkër ju mët jëkkër day doon jëkkër doon sa grand frère doon sa papa wuutu sa yaay moo tax day fees tëll kër gi bis boo meree nag ci ngay xam am nga jëkkër ma moo jëkkër parce que mer wa ci yomb na mer romb ko téye moo jafe meras sa jabar wàcc ko ni mu yombe wala mun na la xam nga bes lu yomb na li jafé kay moy sa jabar tim la khas la wong la ci bop waaw nga ne tek ba mer ma gif nga ne ko ñu ataaya waaw waaw Serigne Cheikh nee na alxalifa na ko yàlla yokk wér Serigne Cheikh nee neena jabar bul takk rekk yaakaar ne ay gee tax ñuy takk jabar naw leen teg moom ak yërëm ko uuf ko ñuy takk waaye mer doon nga yomb na lool yonent bi daal di mat jëkkër lool moo tax kere bañ ko yónnee danaa ci ñëw ci kanam ba mu ñëwee ca kër ga ne damaa jommi soxna saa njëkk ne ko jommi woo mu ne ko damaa jommi jinn laa gis mu na ko yow yaa ëpp doole jinn yaa ko man mas nga maa xiifal mu ne ko déedéet mas nga maa mar mu ne ko déedéet sa lox sa loxo bii mas naa dal sama lex bi mu ne ko déedéet mas maa toroxal mu ne ko déedéet mun ne ko yàlla du wor ba lay toroxal Thank you. am na ak moom juróom benni doom abdallah xaasim fatima min tuddee guddi gi tey roqeya zeynab ak umu kalsum juróom benni doom xadija am na ko yonent bi te bi ñuy ànd mu koy denc ñun fukki atam mat na wala teg na juróom parce que planifié wul parce que غادلوا الناس planifié wul ndaxte ragalul neef neef du feebar jaazir mooy feebar jaazir ñàkk am doom mooy feebar mais neef du feebar jigen warna amlu am lu gàtt gàtt treize gos jel tres gos yep yo bulan dari sin Sëñ <laughs> nyom nyep ñoom ñépp ñu yowmal xiyaam nga ne yàlla treize yii laa jot a am treize yi ku ci nekk lii la am ay ku ñëwoon yowmal xiyaam sa njaboot toll ni tànt bi nga ne nga ne yonent bi maa indi ñii <laughs> yowmal xiyaam nga am njaboot moo tax liggéeyu Serigne Touba ak Cheikh Al Hadj Malick foofu lay feeñe seen ñaari liggéey ñoom ñaar Serigne Touba ak Cheikh Al Hadj Malick ku taxaw yow mal xiyaam da nga la ngay wayoo yónte bi ci sa njaboot fan yi di ñëw ñiy jaar fii di màggali ñëpp fan yi ñëw ñiy jaar fii di jëm Touba ñu dem yow mal xiyaam sëñ sëñ Touba taxaw ca kanam yónte ba ne ko antal karimu annal xadimu dëxëran uddimu fii kasanaay ma ne bu keroogee loolee day aw góor مولدان الإسلام بالقرآن سيدنا محمد يلا boo dawalee sa xel xam ne pexe yi am léegi bu amoon bu ko jëfandikoo du am lu toll noonu lu tax tubaab bi daa bëgg kuy am doom léegi ñaar ngay am te kat cëb dëkkam boo amee doom yaa ngi am trois mille six cent euros boo amee doom deux doom nga def ko fois deux trois gosses nga def ko fois trois moo tax ku wasin booy nàmpal fas yéene amaat keneen ndax euro daa neex foofa waaye euro yàlla yi moo dàq euro yi gaa yi te ëmb ci jigéen dafa am lu ko yàlla yi dencal boo sinee ma am lu mu koy dencal bu nàmpalee mu am lu mu koy dencal bu deelee mu am lu mu koy dencal kenn du deelee ñetti doom di dem sa war a maa la ko wax boo doon wasin dee ilal jannati bi xayri hisaabin te kat booy nàmpal doo cancer cancer yu bari yii dal jigéen ñi cancer yu bari yii fibrome yii cardiaque yii xam nga jigéen fii irandaw gaaf yi dafa xat fi ñuy def xol bi moo yaatuwut moo tax mer yomb ko jaaxle yomb ko jooy yomb ko boo fi amee treize gos nag duutoo jooy day am ci ñoom koo xam ne yàllaa la ko faye moo la gën moo lay yor moo la yóbbu mag ci doom yi deux gos nag wóorut deux gos buñ xasee yàqu ñoom ñaar dootoo am waaye boo amee treize la ma góor ga waxoon keroog ba ma waxtaanee ba nag ca rajo ba mu ne ma am na juróom-ñaar fukki doomu ak ñett soixante treize gos ne ko waaw mu ne ma wenn cinq yi nag baaxuñ <laughs> mu ne Serif mu ne waaye wenn cinq yu baaxuñ yi weer wu dee ñu jox ma vingt cinq mille vingt cinq gos ku ne vingt cinq mille ñaata la ñi baaxul ñi baax ñoom lu ñuy def kon waaw jigéen day ñeme njaboot ni muus ah muus kat jur lu bëree tax mu doom yi faj muus oto yi dañuy fiir muus yu góor yi lekk lee

ngay doon góor waaye fexe ba sa doom yi nob la bëgg la bëgg ko ëpp li ñuy bëgg góor ñi nga xam ne góor goo leen tere ñu ne bàyyi naa ko ndax yaa ma gën gi góor waaye góor goo xam ne say doomu jigéen xamuñu la ñu la gis wala buñ la gisee doo niru bàyyi nga niru un père de famille un chef de famille googu góor baaxul dangaa war a mel ni rasulullah yi nekk bàyyi tëgg bu sëy jotee nga ko ko may mu jël parce que da nga am mat baay boo mënatul bàyyi nag da nga naan waxtaan nga ak jigéen ñi mu gis fi jigen ni di waxtaan ak yow di ma xanaa waxtaan nga ak jigéen ñi wala man ngeen juboo rek wala man de paaka bi rek laa yor moom doo dagg jotee rek looy dagg léegi nak xale bu jigéen bi mo dox nak momit ba gis nit ba gisal bop comme gisaloo ko mu gisal bop ci yow mi papa ki ngay tan moy jeuker mom ki mi tan aw farla la xale xamul jeuker farla xam kon bu ko bay mi tan tanal ko lutax inni uridu an unki haka yunus sallallahu alaihi wasallam ñet doom yi mu kenn ka moo ko mayoon Ousmane mu faatu mu jël kenn ka may ko mu faatu mu ne ko su ma amoon keneen may la ndax doy nga ma jël kenn ko jox ko Seydina Ali muy faatu mi muñ tuddee guddi gi tey voilà waaye xale bu góor day jóge fii ci gaa yi am jëm lool am ngor lool ñoo bëgg sa doom waaye amul xaalis amul visa amul basiru nga ne ko day jàng njàng bu kenn xamul fu jëm ndax njàngum tubaab bi ak mukk ma wax la ko tey machine démb ministre yi di jàng démb ministre yi ñuy jàng kon kay njàng mi du jeex noonu sax fan yi jàngi woon nan conseil économique ñun ñi sax jàngi woon nan fan yi social et fii ci ci sali nu nuy jàngal kon damay jàng jàng rek te li ngay jàng du mokk yonent bi nekk seen papa nekk jëkkër mat ko sëkk waaw benn bis ci bis sax ki ci mujj faat ki ci mujj faatu ca góor ña bisub tabaski la faat wala korite yonent bi tàmbalee jooy fas yéene dajal yàlla na ko déedéet inna aataynaaka al kawsar li ma la jox moo ëpp li nga ñàkk tey chérif yonent bi yàlla ne ko li la jox moo ëpp li nga ñàkk tey